jafandul su ma yeboo di la ñaanal iyo yaay xereeru dalaw piki piki no yaay ramatu da fidèle internaute sans limite sn point com bienvenue dans votre émission minutes sans limite comme niñ lañ ko tàmbalee à chaque fois rek nee leen dañuy sol suñu dàll dem wëri wala ñu seeti koo xamante nii dinañ séq ak moom ak waxtaan bu am solo euh, tey nag euh, dañu dem seetiwaat beneen ndaanaan boo xamante nii icône la woon ci li nga xamante ni moom la nekkoon di ko def ba léegi nii sax moo ngi ci moom lañ fas yéene siqal tey waxtaan dañ koy daa ci bàyyi rek mu nuyoog mbekk mbokk internet yi nga xamante nii ñoo ngi koy seetaan balaa ñoo xuus di dugg ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi ina <laughs> naam yes <laughs> asalaamualeykum Sénégal asalaamualeykum Gambia asalaamualeykum ñëpp worldwide man Ina maa ngi leen di nuyu di leen sant and welcome Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lamp yu ñu am kenn éclairage mënoo benn boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeau lumineux mënee nañu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire l'abat-jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëkk yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance. man comme nga ñun yooyu dafa mel ni léegi man balaa may dugg sax ci laaj beeg yooyu noonu Ina Ina Diawara Diawara bi fan la fan la jógee. Diawara di ko Gambien la. Gambien la Gambien la 100 pour cent Gambien. d'accord Ina te début lañ bëggoon xam balaa ñuy dem fenn ak yow maanaam ndax Gambie nga juddoo wala Sénégal. non non Gambie laa juddoo fa laa yaroo mi États-Unis laa màggee waaw mais sama parents yi Gambien lañ. Mhm. d'accord euh, sa parents yi gambien la ñu toog ba si yàgg gis la ci benn série boo xamante ni da doon daw fii nii ci Sénégal mu nekk un café avec mën nañu sax yow ci révélatrice yooyu noonu nga bokk révélatrice u série bi ñu ràññee la ci loolu nga ci doon def rôle bu am solo euh, euh, nan nga duggee ci série bi ak naka la la dikkee <laughs> loolu de wax naa ko waxaat ko amin xanaa ma delluwaat si I mean, I would like to take the occasion to say a big, big, thank you to FAR Fadi jabari Cheikh Yérim Seck que tey jii am boo déggee Sénégal ñu naan ina ina ina amina ina siw na bu yàgg siw naa Gambie because of the family I'm from mooy family bu ma jógee di am ex président Sir Dawda Kairaba Jawara di sama maam am génn àdduna fan yi yàggul amin maa ngi amin fu muy jëm ko génnal fu mu amin di ñaanal family bi yëpp di ko ñaanal am yal na suuf sedd si kawam amin yeah so um, I would like to take the occasion to thank my family di gërëm sama family di gërëm Gambien yi gis naa support buñ ma support vraiment especially Senegalese people Sénégalais moom mënuma leen a fay parce que dafa mel ni si ñoom laa bokk vraiment di gërëm Cheikh Yérim Seck amiin jabaram moo tax tey jii ma bokk si café avec bi loolu la nag loolu moom moo dugal si café avec. d' loolu moo la ci dugal euh, biñ lay contacter wala bi ngay def si casting bi tu étais aux États-Unis wala yaay ngi woon Sénégal. ok bu ma doon def euh, lii bi buñ ma doon wax ma ñëw bu fekk maa ngi woon Allemagne bëgguma ko woon ak yooyu waaye xam nga faa di sama xarit <laughs> mënu ma ko bañal dara li mooy dabari Cheikh Yérim pare Cheikh Yérim tamit nekk nit ku baax ñu ñëw ma ñu waxtaan ak yooyu ba d' ma ne ok let me just give it a try xam nga parce que yàgg naa def yi mais dafa nekkoon comme loo xamante ne nekkutoon like si affaire de la série dafa nekkoon mode comme ay fashion and stuff like that waaw so I just ma ne xaaral rek ma go ahead ma jël def try that Mm-hmm. léegi yow bi ngay door a dugg ci série bi euh, bi ngay door a commencé surtout euh, sa première euh, sa mën naa ni sa premier role bi nga xamante ni moom nga njëkk joue boobu noonu bi nga ko joué est-ce que c'était évident est-ce que yomboon na ci koo xamante ni tey on peut dire bu waxee dina reetaan loo ñu bëri ndax accent gambien bi nga xamante ni <laughs> moom nga yore est-ce que c'était évident est-ce que yomboon na. <laughs> yomboon na. Asi amina dama miinoon télé man yàgg naa génn télé yàgg naa génn télé yàgg naa def ay publicité and stuff like loo xamante ne amin dama tiitoon wala dafa nekkoon loo xamante ne dafa bees si man mi bi di nga ne accent bi because olofi Gambien bi ak bu Sénégalais bi is different du benn waaye ba tey su ma waxee nit ñi dañ ko di bëgga dañ ma dee ak yu kenn xamul ba still loolu kay moom xaw a jaaxal daaw ci daaw ñu la ci tooñ lu bari wala déet non non nit ñi ma si gën a dañ ma dee damay bu dama laa bëgga ba bu <laughs> foofu rek dañ may bu dama la bëgga ba génne si wàlle wuy sama ne waaw <laughs> yeah so I mean alhamdulilah daal <laughs> Euh, Ima ñu daal di dugg ci laaj bi nga xamante ni moom moo gën a nekk sérieux euh, soxal li nga xamante ni moom moo di askan bi naam sax duñ la dégg ci ay scandale wala ci ay coow yoo xamante ni moom mooy lool waaye dafa am ay rumeur yoo xamante ni sénégalais yi euh, dañ dañ dañ koy faral di wax dañ koy dañ koy ñun dañ koy for ci weewu bay maanaam léegi nag bu ñëwee fii seet si la dañuy bëgg loolu noonu leer leer askan wi ak internet yi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan Ina lan nga doon def Dubaay. <laughs> Dubaay ban si dem Dubaay. parce que man damay dem Dubaï tout le temps ban si. Iman lan nga def Qatar. Qatar. Oh. ban si dem Qatar yi. Iman dem nga fi Qatar fan yi paase. ay rumeur yu bëri génn ñu ne da nga ak benn ministre dem fa. non loolu amul <laughs> loolu amul. Hmm. loolu amul message yow bindoon nga ma message. <laughs> ànduma benn góor. Hmm. waaw dama dem Dubaï jënd sama marchandise war a ñibbisi waat. ma jaar Qatar. te ngaa leeral wax ji yaa ngi sans limite de fii lu fiy génn lu nekk dafa war a leer. sans limite sénégalais Gambien yéen ma seetaan xamu leen ma si dara yi ñàkk fayda yaa ngi dégg rawatina si famille bu ma jugee <laughs> bu dara sax am na yoo xamante ne war naa koo jomm daal fen si. benn góor yow ma Qatar. benn góor yóbbu mais tey dañuy dégg ngay am ay relation ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay ministre yan ministre la ministre Sénégal wala ministre yi nekk Gambie wala lan. amiin ministre ministre Gambie Sénégal samay xarit lañ samay xarit lañ man sama papa daf doon ministre la woon balaa muy génn àdduna. am na kilifa yoo xamante ne fii sama yaay xam na leen am na ñoo xamante kilifa bu mag a mag boo xamante ne kooku lañ ma bàyyale fii. nu ma tudda turam non non du ministre moo nekk si kanami ministre yëpp moom lañ ma bàyyile fii so du ma mën a def dara lu bon ministre yi comme Gambie sama papa ministre la woon ministre yi amin sama xarit lañ kuñ gis nga feeñ télé boo amee soxla ñu boole laa nit nga dem mu nekk ministre amin Sénégal nag I mean lu ma ko mënee wax rek it's like black people nit ku ñuul moo noonu buñ la gisee nga génn bureau di dugg ak génn xam nga sa tànka bari ñu naan de génn diw wala ñu gis la kooku woola ne la kaay nga dajee man fii ñu def rendez-vous xam ga ñu commencé di wax naan dee génn ministry wala sa saay sama may tëdd sama kër tëdd sama kawlal di seetaan télé wala nekk si internet bi wallahi azim nit ñi di ma woo ma ina yow looy def fili ina looy def fii dégg naa fii la nga nekkoon ak diw may ne ay eh, waay tey maa bàyyi tey maa bàyyi amin loolu foog naa loolu attitude nit ko ñuul la yaa soo loolu kenn mënu si dara kenn mënu si dara waaye loolu yëpp maa ngi si sant yàlla parce que am na ñoo xamante ne siw nañ ñoo ma gën a siw kenn waxu si ñoom kenn waxu si ñoom soo man tey jii bu ma toogee lu ne ñu wax ko teg ko sama kaw der bi kon que man maa choose life bi to be um, to be uh, uh, you know to be famous of course dinaa sóoraale nit ñi tamit di wax exactly so loolu sax mooy gën a tax man ma fas jom comprendre nga waaye buñ toogee waxuñ si man dara du ma fas jom du ma xam sa fan lay teg ma tànk so lu ñuy def noonu duñ samaay noon de wax la nañ si yokk rek. <laughs> mais ba tey moo ci ministre yi INA maa ngi yow ñoo wax ba tey yaa ngi ci sportif yi footballeur ñu ni INA basketteur ñu ni INA tax fi mu toll nii dégg nañ yaa ngeeg benn basketteur boo xamante ni am na doole lool fii nii ci Sénégal kookan la ñamal ñu si tuuti. basketteur yi footballeur yi xam wax ko maanaam sportif yëpp samay xarit lañ sama ay xarit loolu kenn mënu koo dindi lu leen neex nag ngeen wax kenn mënu koo dindi sama ay xarit lañ loolu yàlla ko dagal <laughs> sama ay xarit kese lañ. Ah, baax na ba tey ci cap boobu noonu la ñuy des ak yow gannaaw dugg naa ci ministre yi nga daw ma ñëwaat ci sportif yi nga daw am na boo xamante nii moom rumeur la fraîchement la génn fi mu nii moom gars yi nee nañ yow ak Momo Dieng dafa am loo leen séq. ban Momo Dieng. Momo Dieng mi ngi woy. <laughs> sama <laughs> frère. sama frère kañ. <laughs> Momo Dieng. Momo seexuñ dara. Momo Dieng sama. Mhm. Momo Dieng sama frère la maa ko nuyu di sant di ko nit ku baax nit ku yaru nit ku julite nit koo xamante ne du wax amin tey jii ba ma ko doon tànnal jabar laa la wax de man mii may daw. yow yaay daw jëm fan. may daw pour mu takk ma parce que lu nit jigéen bu baax loo war a wut si góor yëpp si Momo Ina kon léegi wax ji leer na internet yi ñuy seet. déglu lu ma la wax rek dama ni mhm. tey ji bu doon moom moo def doon ut jabar man mi maay daw ne ko takk ma parce que lu jigéen war ut yëpp si góor jigéen bu baax. lépp ak si Momo Dieng mais Momo sama xarit la sénégalais yi nag ñoom duñ comme ni ma la ko waxee rek. ina ina nañ leeral carte gi ina li nga fi lim yëpp ci Momo Dieng wax fi ba pare nga ni yéen ñaar sequ leen dara. seexuñ dara tey jii amin boo seetloo depuis démba maa ngi leen doon yónnee ay vidéo challenge yu ma ko nekk di jàppale moomoo amin macha allah xale bu mën wëy la mu nekk ni ku baax jàppama comme séeram ñuy waxtaan lu ne comprendre nga. waa léegi taxawal euh, taxawal ina xam nga woykat yi bari nañ Sénégal quoi nga ñëw def sa choix rek ci Momo Dieng. non du loolu. man Wally Seck sama xarit la Wally yow xam nga ne Wally sama xarit la moom moo tamit du ñoom ak ñoom Pape Diouf ñoom ñëpp samay xarit lañ you know mais yàlla moo ko jaarale xëj na yàllaa jaarale loolu suma diggante moo moom ma war koo jàppale affaire de promotion parce que tey jii maa ngi ko bëgg a jàppale foo xamante ne nit ñi séntu wuñ ko daal tey jii maa ngi ko si promotion bi yéen boo leen seetloo loolu depuis barki démba gis ngeen loolu non maa ngi def ay challenge di ko dugal sama statut jox naa ko yenn site pour ñu dugal ko te parengu ma parce que xale bi macha allah mun na wëy te dina dem parce que xale boo xamante ne dafa yaru moom moo du wax moom moo li nga ko wax ne defal lii defal lii loolu lay def barki dem boo njaay laa xamante ak moom yàggul mais am na yu bari yoo xamante ne dama ko ko tere mu ne ma ne waa baax na te gis naa ne mu ngi def loolu te bu ko rek dinaa gis a very very improvement on his career. kon yéen ñaar da ngeen war a def benn collaboration kon mën nañ xaarandi Ina Diawara yi jëlee fii moo Dieng yóbbu ko fa fële nga xamante ni moom moo di Gambie pour mu tëgg fa. incha allah rabi feneen furut Gambie sa mun nañoo dem ba États-Unis ba dikki arab laa la wax. <laughs> kon léegi fu mu toll carte gi leer na yéen ñaar génnu leen. génnuñ. salal la ñaar sama frère la. kese. kese. jeex na dara. <laughs> Ina ba tey rek dañuy des ak yow euh, ci laaj bi gis nañ à chaque fois boo dee génn wala ngay def li nga xamante ni moom moo di interview euh, da ngay faral di tudd benn tur euh, muy Yaya Jammeh ex président wu Gambie yéen ñaa lan la. amin amuñ amuñ woon benn relation amin ex président la amin liggéey na fa lu mu fa war a liggéey amin gars yaa jame amul lu ma dara lu ko wax lu bon xanaa lu mu génne sama maam lu mu génne sama maam kuu ko mooy Sir mu kuu ko euh, kooku génn réew mi ak yooyu waaye am maak moom gis naa ko ñaari yoon benn bi kanilaay la woon dikkaam benen bi pale ba woon amoon nañ woon comme xam na ma xam naa ko waaye familleem moom frère am bu mu bokkal kooku laa gën a xam kooku laa amaloon relation kooku mu mun nañ daan dañ naan wax chaque jour parce que kooku dafa bëggoon ma liggéeyal leen euh, comme maanaam protocole mais mënuma ko woon a def parce que affaire yi famille la ak nu mu fa demee woon soo loolu mënuma ko woon a def daal. d'accord ci say biir wax dégg nañ la nga ni dafa génnoon ki nga xamante ni moom moo di sa maam est-ce que ba nga amee occasion pour gis ko loolu noonu waxoon nga ko. <laughs> oh amin moom waxuma ko woon dara lu demee noonu mais rakaam bu góor eh, eh, eh, kooku laa mu sonal kooku suma tooñ ma demaa si biiroom ni damay toog di ko tooñ xam nga naan ko jox ma xaalis dama ko sonaloon daal xam nga su ma demee ma ko yéen a génnee sama maam xam ga ah, mu na ma ak yéen xaalis bi ngeen lekk yëpp yéen doomi président bi seen famille bi ñëpp a ngi tukki kenn newu fi am ngeen mbokk bi am mbokk ay rusi xam nga ñuy reetaan ma ne ko ne <laughs> waa bu yóbbu mu ne ma demal nga wax a yaaya ma ne ko dama mu ne ma ah yaaya moom kenn ñemeñu ko waaye moom mosuma wax ak moom yooyu mais xam na ne c'est di président la ak yooyu noonu. yeah yeah. macha allah Ina rek ba tey aussi ci laaj bi li nga xamante ni moom moo tax tey jii ni sénégalais yi xam la internet yu bëri aussi di la suivre xam la bu baax a baax muy série boobu nga xamante ni moo fi doon daw di un café avec xam na ci nga ci doon nga ci doon jouer rôle bu am solo boo xamante ni sénégalais yi dañ ko doon bàyyi xel bu baax baax bay jël say terme di ko di ko sax wax ba kay ba kay ba wooyee léegi série boobu à un moment dañu de gis mu def benn arrêt te arrêt bi mi ngi commencé ci li nga xamante ni moom moo di troisième saison bi ñu dégg ay quelques noms yu ñu doon cité que yow ak bàjjan ay ndey jaalo yooyu noonu da ngeen am xaw am problème li nga xamante ni moom moo di maanaam payoor maanaam fay gi ñu leen war a fay pour ngeen nangoo jouer ci troisième saison boobu loolu nan la demee woon. amin loolu man dama ne duma si waxaat sax parce que loolu yàgg na yàgg na torop torop torop loolu problème la woon amin fu nekkaa day am problème série yëpp série yu daw Sénégal ñëpp. yow nga xam man ma xam keneen xam ñu ñàkkaa xam problème moom day am tout le rawatina xaalis bu si bokkee comprendre nga amin loolu réglé nañ ko te tourné nañ ay sam épisodes yu bari fu mu nekk nii tourné nañ ba ay trente épisodes yoo xamante ne léegi mu daw incha allah léegi yaagatul mais ba tey est li ngeen doon wax loolu na fa noonu la fa demee a fay ba pare ngeen door a nangoo joué waaw non non non non non ñu ngi doon continuer suñu joué ñu ngi doon continuer suñu tournage yi. sans pour autant ñu fay leen. waaw. parce que mais yéen loolu ngeen doon réclamer. non non non nit ñi nag xamuñ lu nekkoon si biir. te lu nekk si biir rek leen nañ ko man duma ko mun a wax. comprendre nga duma ko mun a wax mais loolu rek ne nañ ko ñun suñ patron Yirim macha allah loolu moo tax ba tey man Ina Jawara sir yu bari ñu ngi daw Sénégal ñoo xamante ne dinañ ma woo chaque jour. dinaa am ñu ma waxal ne ma ina dañ bëgg nga bokk si série bi maye ne mukk laa duna du ma si bokk parce que nga lu xew café avec luñ ma mun a fay benn série mënu ma koo fay Sénégal hmm? maa la wax li xanaa nigérian nigéria am na benn bu ñoo proposé te boobu tamit yaakaaruma ne dinaa ko def parce que sama yaay dafa ne bu ma si dugg naa yemagum fii ba si kanam ci biir wax boobu noonu laay duggee nee nga un café avec lim la mën a fay amul benn série Sénégal boo xamante ni tey jii nii war na la ko mën a fay loolu ndax mu ngi mi ngi wu ci li nga xamante ni li nga nekkoon à l'extérieur la ñu jëlee la fa indi la fii waa wala déet. non non non non non man ma nekkoon ak série dama demoon ma toogaale fa mais série bi bokk na ci tax nga a ñibbisi Sénégal waa wala déet. non non non non bi waa série bi moo gën a tax ma dëkk Sénégal mais série bi dama daan dem di ñëw. bu ma waree tourner ma ñëw nekk si hôtel bi am ay épisodes ma war a tourner su ma ko tourner ba pare ma delluwaat mais ba après Yirim si la ma wax ne da ngay jéem a toog xam nga moo gën daal noonu laa fi toogee. ba tey jii ma toog. Sénégal daan nax doo ko <laughs> ba jot gaam bi. <laughs> Euh, léegi Ina euh, actuellement dañu bëggoon a xam euh, yan ñooy say projet maanaam ci lan ngay yëngu vu que ni nee nga actuellement ñu ngi lay woo di la démarché ci pour nga bokk ci ay séries yu bëri mais ba léegi bokkoo ci ay séries léegi yow lan mooy sa business instant bi ni ci lan nga yëngu. I mean right now I mean maa ngi jaay I mean damay business maa ngi amoon bitik fii Almadi. mais dama ko tijangum mu nekk di def ay euh, euh, euh, construction mhm. defaraat ko ak yooyu mais maa ngi jaay ay bagaas ay bagages yu pop waaw so si loolu laay yëngu di tukki di ñëw yoo xam nga <laughs> di indi bagages yu nice am na yenn xale jigéen maa ngi leen di solal ak yooyu ak yeneen a yeneen daal yoo xamante ne ñu ngi ñëw ci kàttan yàlla léegi ngeen gis ko ni ko gars yi di waxee ci français bientôt. bientôt lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet sans limite sn point com yi nga xamante ni ñoom ñoo la doon seetaan. Um, waaw maa ngi tàggatoo ak yéen woon wax ji yem fii ma sañoon mu dem <laughs> for hours and hours amin sans limite point com amin kontaan naa si yéen kontaan si yow Abdou ak caméraman bi Moustapha. amin may gërëm sénégalais yëpp yëpp yëpp xale mag ndaw góor jigéen ñëpp maa ngi di gërëm di leen sant di gërëm Gambian people di gërëm Gambia di gërëmaat Gambien yi bu baax a baax a baax Sénégal gis naa ne daal ne Sénégal Gambia we are one family one people gis naa support boobu si yéen yal nañu yàlla jubale ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm Gambia senegal benn la Gambie bu jooyee Sénégal jooy Gambie bu ñu amee jàmm senegal am jàmm so support bi bi ngeen ma woon amiin mënuma leen a gërëm mais bàyyi naa leen a yàlla ak Serigne Saliou mi ma yaakaar yal na leen yàlla fay. foofu la ñuy daal di jeexale suñu émission quinze minutes euh, sans limite tey nag ñu seet woon ki nga xamante ni moom moo di Ina Diawara euh, séq moom waxtaan boo xamante ni macha allah euh, leeral na yu bëri yoo xamante ni doon nañ ko ci doon dégg wala ñu ko doon waxal tey jii daanaka lépp leer na fii nii ci sans limite sn point com di leen jox dig daje ak beneen artiste moo xam koo xamante ni day yëngu ci woy wala mu nekk li nga xamante ni moom moo di acteur wala actrice ci série yi actuellement fi mu nii ci mouvance boobu lañ nekk ñoom la ñuy wër actuellement ginnaaw kenn gënu leen def buzz fi nga xamante ni moom moo di Sénégal euh, di leen wax rek ngeen daw abonné wu en masse euh, ci Sans Limites TV n'oubliez pas aussi d'activer li nga xamante ni moom moo di cloche bi pour recevoir notification ci bépp vidéo boo xamante ni rek dugal nañ ko merci et à la prochaine Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lamp yu ñu am kenn amu ko li ñu am ci éclairage mënoo ko gis boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeaux lumineux na ñu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire l'abat-jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëkk yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance. jafandu su ma yeboo di la ñaanal Pikin Pikin no be nyai. Mama to the king.